La ilaha illa asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ci ndigalul Serigne Cheikh Jëmu Fall xalifa général kullu kuy Baye Fall Serigne Cheikh Mbacke ibnu Serigne Abdoul Aziz Bara Serigne Mor Talla Sall jëwriñu fédération daaira Mouride ba ci Argentine waa daairatu Jazbul Mouride di Baye Fall yi nekk ca Touba Argentine ci njiital Serigne Assane Baye Fall ñooy am mbégte di leen yëgal màggalug ñaar fukki fan ci weeru koor guug maam Cheikh Ibrahima Fall gi nga xam ne ña ngi ko nama amal ca Touba Argentine di bés ba nga xam ne ci la maam Cheikh Ibrahima woon ci Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim kon bés baa ngoog di ñaar fukki fan ci weeru encore di yemook dimanche 26 mai 2019 ñun ko amale ca Touba Argentine ca hôtel Rodrigue Peña numéro 361 bés ba bu la ca yeggee Sëriñ ak sàmm mooy jàng bés ba ñu ci woon ak bàyyi wunu kenn bàyyi wunu ñenn bàyyi wunu fenn bépp kër kilifa diine bu nekk ci diwaan ba ñu nga lay woo ci boobu di ñaan itam bu ñu yeggee ci bés ba Sëriñ ak sa sàmm jàngkatu Sëriñ Touba Cheikh Ahmad Bamba Rasul bi ñu daal di koy sargal bu baax a baax ci boobu la bés bu ñu yeggee ci bés ba programme ba ni lay demee bu ñu xëyee daañu fa amal ñàngum ala nabi yéen a yool bi maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall Babil Mouridine bu ñu ba ndogu jot ñu defal ay xéewal yu am solo jagleel ko mbokku taalibe yi bu ñu noppee ci ndogu yi kuréelu xasida yi daanu jël moo xam jànkatu rajas yi wala jànkatu aw yi kuréelu xasida yi ak kuréelu Samfal ba nga xam ne ma nga foofa ca Touba Argentine Serigne Akassa Samb moo ne ma yëggale guddi ga kon bés baa ngoog mu di waa daairatu Jësbul Murid di Baye Fall yi nekk ca Touba Argentine ci njiital Serigne Assane Baye Fall jébbaloo ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul si Ahmad Bamba ñu koy amalee ca Argentine ci hôtel Rodrigue Peña 361 bés baa ngoog ñu ciy woon ak ñëpp bàyyiwunu kenn bàyyiwunu ñenn bàyyiwunu fenn di ñaan képp ku ca ñëw yàlla nga ca dajee ngërëmal Cheikh Ibra la ilaha